Il fait 15h56, 4h moins 4. En tout cas, Islam Diop, tu es prêt pour dem. Jenny Watch Fale, Dragon Watch Grayoff. Eh, frali, frali. xamante ne mooy seen caatu kër si wàllu yaayam mi noonu taxaw si buntu kër gi ñoo ko caat boo noonu di way cercle la mu génn oto yaa ngi nii waaw dañu war a jëndi kaar yi mi ngi noonu mbokam waa Grand Yoff nañ inshallah dañ koy ñaan yàlla may ko ndam rek inshallah amal jàmm jàmbaar waaw fi la rawee jaarama rawan ak sa waaw mi ngi noonu rawan ko yak ak Zarko mooy loolu. booy dañuy caaxaan. non booy dañuy plané. parce que heure bii ku si nekk da ngay bëgg a wane sa bopp. waaw waaw waaw. kii alaaji bu ne bu yéegee soo dem. bu ko gaaw a gisaat. bu ko gisaatee. man war a génn. Zarko mi ngi waaj sa mbooloo mi fii nu mu méttee yow eh, eh, mi ngi noonu mbokk yi gaa yi nga dugal bitéel yi si biir ah monsieur El Hadj moom bëri duñ ko rëcc. laazim ku daan ñu yuuxu mooy war a ne faroo ku daan nga yuuxu. da dem arène nationale dix combat moo fi am dix combat yëpp da nga yuux kon foo far <laughs> far ñu fenn mais lamb ji nag lamb dof la gis nga jën keere su ma amoon conseil bu ma koy jox Zarko ku ko fekk ci mëninam lamb ju gaaw parax parax bëgg si jën keere fekkee Zarko daan ko jën keere mën a fatt la ko fatt ba bu bopp Zarko dugg doole jëpp ci bopp waaye nag Zarko bu toppee jën keene ci teeyam Diène Kairé daan kon ndax Diène Kairé mbër tey la ñaari affaire la yoo xam ne ku ci topp sa morom sa mënul morom daanu waaw lamb ji daal doy na waar doy na waar. les supporters ñi ngi taxaw di ko xaar ñi nga xamante ñoo dem stade ak lu mën xew moog Diène Kairé ñooy bëre waaw demal booy yow sànq maa waay booy. moom la maa ngi lay dàq fii xoolal a la ma jógee yow avancé nga dem yow nga fan la ma jógee yow buux nga jógee a wóyu wóyu bandi di bandi bandi lu ngeen bàyyi bandi bandi lu ngir yàlla oui man nag jaaxal ko waaw non bandi bi bandi bandi. kooku duma nga. waaw mi ngi noonu gis nga boo xoolee Zarko ba léegi ba. gaa yi ngi toj glace yi. gaa yi ngi toj glace yi. gaa yi ngi toj glace yi tey jii li ma gis Zarko tey macha allah. lamb ji caaxaane wu ko waaye ki nga xamante ne mooy Diène Kairé le fils tamit dana nekk bëre boo xamante ne du yomb en tout cas day day yomb. demee Adji Sarr oos na dëggantaan jàmbaar la mbër la kaamin la mais yal min mi la tasel du def dara ba sëñ Touba kii mooy loolu du cuune du cuune xam na lu mu demee non nice non xam na nu mu demee mbër mooy loolu mbër bu mu bàyyi lu mu bàyyi teew yaa ma gën xam mooy loolu toog na ko mbër gaan léegi nag mun a gaan yaa ma gën a xam du cuune waaw billaay wala taala non nice na daam lu mu visé rek xool yoon bi ni xam na nii mooy loolu business la mooy lool dafay appliqué rek dem yoonam loolu yëpp ay obstacle yu ndaw la yu rëy rëy nañu jëm nii bari waaw bu ñu xeexee non bu ñu xeexee jën day perte bu ñu bëree bu ñu bëree day xaar ah. billaay wallaay moom làmb moom paré sa moo dul teey sax moo dul nekk ñi xam ne di ñëw di mbërëx mbërëxi mais ké bu sulee tànkam nengañ bopam taxaw nii alaaji Fallu laala ku mu da ngay xaar nice dañ jagg nek moo loolu di ko rek énergie bi té móor diko baraka normal suñu karam mën nako nice and ak mom mbabat fu ne bi japp ga di len baraka normal mais ñoo ci arène bi xam rek ay mbir do comprendre mais légui xam na nu mu demee tu cuune bobu dé ba sëñ Tuubaa ajagóor jaajëf ba mi ngi nonu wala béjjël nag bi mi ngi noonu def si xorom boo Zarko xam naa soreetul pour mu génn ñu ngi xaar li nga xamante ni doom eh, day bëgg naa la mais lépp tawfeex nga ni ma jàpp rek daan bak sëñ Bamba day ñëw daanu de seen waaye confiance en forme pleine confiance bàyyi ba muy dugg nga gis garaaw ak sëñ Bamba <laughs> wala la demee ndeysaan Zarko mi ngi doon waaj a mi ngi noonu Zarko xam naa ni daanaka li des bëre fu mu génn bu gisee ndeysaan kër yi média ngi filmé xaar Zarko génn Zarko gennagul dëkkandoo ñepp ñëpp a ngi toog di xaar ba dafa metti waaw loolu génn te lamb seetu la see dafa daf see beure te li ni mbëri ko yor yeb ci yor setu ay gar yu doy war na yor. la ma affaire jinn la. affaire jinn la ñuy sànni affaire yi. waaw mi ngi noonu. yaa ngi yi nga takk yi nga xamante ne mooy bagage yi bitel mooy génn noonu. gaa yi nga yóoxu. mi ngi sotti xorom si oto yi Ndiolé nga sotti xorom si. nee na saf dégg nga. nga waaj génn saa mi ngi sotti ndox mi. Thiat mi ngi sotti ndox mi. Zarko nga waaj génn. jël ma xoolal paa bi génn léegi xam naa Serigne Sarkoy la bokk. ñu ngi noonu. génn Sarko boobu ni génn boo maytul mi ngi noonu taxaw. Zarko mi ngi di ñëw gaaw mi ngi noonu di génn Zarko mi ngi noonu ak bu bi Zarko mi ngi noonu waaj dem stade mi taxaw seen buntu kër xoolal ma riir bi ndeysaan Zarko nga saraxe sondel yi mi bi Zarko bi oh mi ngi saraxee saraxoo ni saraxee mi ngi doon si buntu kër gi gàmmu jël ma sarko bu baax mi ngi doon taxaw si buntu kër gi di saraxee amuru cey sarko yaa ngi ngi doon di wax Zarko ngi taxaw gaay ngi ñu ngi fel seen loxo yi def leen doucement Zarko ngi doon di génn mi ngi taxaw si bu kër gi di saraxe Zarko boobu di saraxe Zarko soo taxaw noonu li nga xamante ne moom mooy garaj yi yëngal bopp bi Zarko a ngi noonu di dem mbër gi noonu taxaw Zarko sol na li nga xamante ne mooy mooy mbax ne bu xam am pataaw yi Zarko noonu di wax ak maam ji ndeysaan oh lëng na maam ji lëng na maam ji ndeysaan tur na xewal oh ndeysaan jëmale oto bi mi ngi tur xewal woy oh pop pop mais xoola ñun su gën rek seen ngoog di dem ndeysaan mi ngi topp mbooloo mi dem seen ngoog mu ngi doon dem ndeysaan am na ko fi jàll seen ngoog doon dem na kot na mal ne ba jooy ndeysaan ba dugg si oto bi Zarko moog maam ji ndeysaan mu nekk lu day waar boo xoolee mbooloo maa ngi topp Zarko mbooloo maa ngi topp Zarko eh, mbooloo dem def na benn oto boo xamante ni mooy dox ni Zarko tey lu ma gis image bi mosuma koo gis dafa kottu maam ji jooy jooy jooy metti naan àllu buux nit ñi dem dugg si oto bi mais mi ngi noonu mi ngi noonu dem. Zarko boobu dem ndeysaan ñu ngi wis Modou Lo maa ngi ko topp oh waaw mi ngi noonu kon nag euh, yàlla na yàlla defal jàmm que le maire jëlal ma kër gi nga xamante ne mooy balcon bi ak kër gi nga xamante ne la Zarko génnee muy maam ji muy muy maam ji ñu gis say mu jooy